dernier ressort est-ce que yaakaar nga ne bu ñu indiwaatee mbir mi en cassation ci cour suprême cour suprême mën na jël beneen décision boo xamante ne mën na bañ a méngoog choix bi nga xamante ne moom la Ousmane Racine Thion def. merci beaucoup laaj bi am na solo trop ñaari yi cour suprême mënu ci def benn cour suprême mënta kasewaat décision ba pare naan day renvoyer parce que cour suprême ci banqaas la am. yoo xam ay bànqaas yu permanente bi si jiitu mooy chambre yi chambre civile chambre administrative chambre criminelle et cetera ñaareel bi mooy les chambres réunies bu ñu dajalooyee néeg yëpp ñetteel bi mooy l'assemblée générale de la cour bu fekkee dafa am pourvoi en cassation ci benn mbir cour suprême cassé yóbbu ci beneen juge pour moo attewaat mbir mi su revenir chambre réunie ñooy dajaloo àttewaat mbir mi te dañ koy jeexal dañ koy vider définitivement donc cour suprême li mu defoon ci bii passé nga xam ne dilatoire la wër-wërloo mënatul am donc c'est rassurant te loolu yoon a ko wax. deuxième bi mooy cour suprême amul fu mu mën a jaar pour casser ba pare daal di évoquer maanaam daal di acte mbir mi ci fond bi daal di ne jox na dëkk état du Sénégal parce que benn branche maanaam ci benn bànqaas. wala benn moyen rek la basé woon pour ne casser décision décision juge si Faye bi mooy nee na Sabassy Faye da nga wax loolu loi lu mu wax man d'accord mu ci loolu ba léegi mais loolu juge bi fatt na ko te loolu mi ngi porté ci benn mbir mooy Sabassy Faye daf ne yow huissier bi nga demee di yëgale Ousmane Sonko ne nekkul ci liste yi nga ne wër nga ko fépp gisoo ko dangaa jël këyit bi bi koy yëgal yóbbu ko préfecture bu plateau après nag lettre bi nga ko war a adressé pour yëgal ko ne këyit bi ñu lay jox muy muy préfet sous préfecture bu plateau lettre boobu noonu waroo ko woon adressé si dëkkal góor bi Sébikotane nga ko war a adressé te le fait que defoo def nga loolu léegi kon loolu nga def exploit boobu jaarul yoon loolu nag juge bi daf ko rectifier daf ni mbir mi du est yi jaar na yoon wala jaarul yoon exploit bi nañ nangu ne jaar jaar yoon mais. nga yóbbu ko si kër góor gi yóbbu fa lettre de commandé tekkiwul ni Ousmane Sonko yëg na ne <laughs> rajo nañ ko ci liste donc il a déplacé le débat sur la forme de la régularité de l'exploit du huissier à son effet te effet bi mooy la prise de connaissance du président Ousmane Sonko de la mesure de radiation intentée en son encontre loolu mooy li Bamba Cissé maître Bamba Cissé wax ne point de point bi nga xam ne si nañ kase woon fàtt nañu ko léegi est-ce que cour suprême mën na xëy li mu waxoon ne lii moo tax ba kase décision bi ba renvoyé pour yow nga corriger ko juge bi corriger loolu cour suprême nag corriger nga ko malgré tout man damay joxaat état bi dëgg mënul ne est-ce que cour suprême mën na taxaw ne Ousmane Sonko jàpp nañu ko nga xam ne juge bi wax na ko mooy on ne distingue pas là où la loi ne distingue pas loi bi def na nañ ko arrêté bu ñu ko arrêté rek c'est est-ce que Cour suprême mun na taxaw tey wan Sénégalais ne Ousmane Sonko ñu ngi koy wër ba léegi mënut a contester ne Ousmane Sonko a été arrêté le 28 juillet et dès lors la a été arrêté le 28 juillet la décision bi nga xam ne moom lañ jëloon par contimence et anéantie en toutes ses dispositions te ñaar yi nag mooy fond bu litige bi mooy forme bi ak fond bi est-ce que Ousmane Sonko ñu ngi koy wër ba léegi wala waruñu ko ñëpp xam nañ ne jàpp nañu ko. kon contumace sama du fa ñaareel bi mooy est-ce que état bi ne yëgal na ko est-ce que yëgoon na ko te prouvé nañ ci kanamu yoon te juge bi wane na ne Ousmane Sonko dara firndewul ne yëg na ko lu dul bi mu jëlee décision ne moom yëg na ko te ci journal la ko liire donc Cour suprême munul jaat feneen lu dul dëggal lu Ousmane Racine Thion wax sinon lu lu ci mënti am mooy nag Sénégal amatul yoon parce que munoo am ay juge yu intègre ay juges yu compétent yu nekk ci ñaari juridiction yi différentes Ousmane Sonko xamu leen bokkul ak ñoom yarawuñu carte membre passé politique ñu ñoom ñaari ñëpp ñu accordé wu ci ne Ousmane Sonko moo am dëgg kenn waru ko raje ci liste électorale yi Cour suprême dajaloo war jaar feneen loolu Sénégalais yëpp dañuy xam ni déni de droit la et offense à la justice donc Cour suprême pour répondre mënu si leen Euh, jërë jërëjëf euh, maître xanaa ma dem ci li nga xam ne moom mooy euh, presque li ñuy waxee cappaandawal émission bi ñu gis ne ñu bëri également en ce moment nee nañu kat seeni carte électeur jotaguñ ci parce que ñoo ngi jëm ci wàllum élection am jeune yu bëri yoo xamante ne tey jii nii ñu bëri nee nañu gisoon seen ak carte électeur tey jii nii mooy yow sa appel en tant que jeune pour motiver les jeunes à ce que wu dem jëlee ci seen carte électeur boobooy première question la deuxième question maître mooy la sécurisation du vote parce que ci élection la ñu jëm du ñu bàyyi bañ na bañ egg ca cappaandaw la ñu naan kat soxla nañ ay ndaw yoo xamante ne ñoom ñooy toog ci bureau de vote yi parce que ce sont des élections et ceux qui doivent sécuriser li nga xamante ne moom mooy élection yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy les candidats ñoom ñooy am seeni représentants de facto on aura un un candidat et le président Ousmane éligible donc il sera candidat donc ci wàll woowu est-ce que jotul également ñu commencer recenser jeunes yi nga xamante ne jàpp nañ ne dans chaque commune chaque bureau de vote ka war a toog ñu teel koo xam teel teel liggéey teel koo recensé ba nga xamante jour élection yi ña toog ñu am fulla ak fayda lañ ba nga xamante ne képp ku war a dugg si war a voté boo xasee ba voté kii du mën a voté jiwaat feneen képp ku war a dugg si war a voté turam bu nekkee ci liste yi day voté képp koo xamante ne war na dugg war a voté du vote lu dul lu régulier loolu est ce xamante ne war ngeen ci liggéey bu baax a préparer ndaw ñi ba aussi demee ci élection côté boobu duñ ci am mbetteel si foofu damay wax ni yàlla wàccoo na ak ñun président Ousmane Sonko wàccoon na ak ñun parce que li mu waroon def yëpp def na ko ba tey jural na ko caabi féeti ko ginnaaw ñun aussi yàlla may na ñu chance ñi dem ci élection présidentielle boo xam ne ñëpp xam nañ ne suñu participer te def lu ñu war a def yëpp réew mi suñu loxo lay tegu mais loolu nag ñett défi nañu am yoo xam ne moom lañu war a matal pour mbir mi jeex premier défi bi mooy le défi de l'occupation du terrain liggéey bi ñëpp def ci période de bi liggéey bu exceptionnel liggéey bu jéggi dayoo la mais est-ce que parrainage bu jeexee rek ñun dañu war a delluwaat suñu kër du ñu nekk sur le terrain élection yi dañ ko bëgg a gagner dès le premier tour loolu nag ñun ñoo am potentiel bi ñun ñoo am popularité mais suñu ko liggéeyu dañu koy perte va am benn borom xam-xam France bu doon wax ni élection présidentielle kenn du ko gagné dafa am ko koy perte mooy day am kuy perte keneen ki bénéficié wu ci présidentielle 2012 Abdoulaye Wade moo perte Macky Sall bénéficié wu ci mais nit ñi choisir wu ñoon Macky Sall élection 2000 Abdou Diouf moo perte Abdou juuf moo perte Abdoulaye Wade bénéficié wu ci présidentielle bi ñun la askan bi choisir ñun ñoo am majorité sociologique su amee kuy perte. ñun lay doon donc loolu il faut mu leer na ñi bàyyi xel ne am na junni nit ñoo xam ne ñu ngi ci kaso yi am na yeneen ay téeméeri nit ñoo xam ne génn nañ réew mi te ñun ñoo fës ay man ay Ousmane Diagne mais am na ñeneen ak ñeneen kenn xamu leen te ñun ñi xam leen ñoom ñëpp dañoo génn réew mi pour continuer seen résistance loolu nag du tëdd sa lal moo koy gagné l'occupation du terrain doit être loolu moo tax JPS mooy mouvement bi ma jiite lancé la grande offensive des porte à porte pour def le un million neuf cent quatre vingt onze mille ménages du pays te loolu tàmbali na tey waa Dakar ñu ngi koy def waa kaw Kaolack bëgg nañ ko def waa Géejawaay ñu ngi koy def mais aussi Wakaam Sicap tous les